dafa di loo xam ne dafa nekk synthèse boo xam ni suñu culture yeeg yëpp dafa nekk si moom du kenn rek boo xam ne da nga koy localiser fenn doo ko wax ni Casamance rek la doo ko wax ni que euh, Thiès rek la doo ko wax que Ndanda rek la mais fépp Sénégalais bu nekk dafa si gis boppam si moo tax aussi ñuy kontaan si taxawaay bi nga xam ni taxaw na ko ndaxte dafa taxaw ngir Sénégalais yi gis askan yi te mu di aussi lu dëggu si li muy def dafa di koo xam ni gis ngeen problème yi Sénégal am yëpp moom ngeen dégg muy feeñal problème yi nga xam ne am na fi loolu mooy loolu opposition ndax opposition mooy lan da ngay taxaw di alerter askan wi li nga xam ne askan wi mënuñu ko gis wala mënuñu ko wax parce que am amuñu kàddu buy porté fu sore yow l'opposant nga am élément yooyu tekk sur la table informé askan wi yëpp ba ñëpp xam ko pour ñu euh, taxaw si wala gouvernement bi dellu gannaaw te boobu ba tey loolu lay def li fi am yëpp li fi xew en réalité moom moo ko sulli te lool ko bëgg sa réew moo koy def donc ñu moo tax ma ni moom dana neex àndam beneen bi mooy esprit patriotique bi nga xam ni moom la ñuy prôné fii du slogan creux parce que dañu gis ni suñu autorité dañuy dañu habitué ak li ñu wax ay patriotisme de surface maanaam pour que ne li wane wu rek noonu mais li ñu wax gëmuñu ñu jëf méngoowul ak li ñuy wax mais fii gis nañu ak action yi nga xam ni moom la Pastef di entreprendre am nañu une nouvelle jeunesse boo xam ni moom mooy naître Sénégal mooy jeunesse boo xam ni am na conscience conscience de ses devoirs maanaam ay wareefam jeunesse boo xam ni euh, xam na aussi taxawaayam ak lan moo ko war si dëkk bi jeunesse boo xam ni ñu ngi koy formé pour ni ko da seet yow lan nga mën defal sa dëkk waaye bu taxaw bi xaar lan la sa dëkk di la defal waaye nag loolu dafa ànd ak njiit boo xam ni koy jiite si si euh, jiitin mu leer wuuteeg ñi nga xam ne tey dañuy jiite te jiital boobu teguñu ko lu dul si ay luubal si ay nax askan wi si ay maatey ak puukare donc loolu yëpp mu ngi si Pastef te gis ngeen vacances agricoles li ñuy def symbole patriotisme bu bu bu rëy la ndaxte xale ñi nga xam ne du xale yi rek parce que bu xale rek moo si nekk mag ñeeg ñëpp a ngi si ñëpp a gis seen bopp góor ak jigéen mais dañu xam ne au que ñu toog alors que suuf saa ngi fi am ñu possibilité euh, euh, def ci dara surtout mais dañu jàngal jeunes yi aussi ñu développer aussi agro business ak ak beaucoup d' autres choses je suis que ñu am expérience bi ren yëpp. daañu commencé xalaat nan la ñuy développé aussi agrobusiness te loolu daañu leen si man accompagner bu baax a baax a loolu mooy tax dëkk di développé te loolu mooy esprit patriotique ndaxte ñii déjà ñu ngi wane ni bëgg nañu seen dëkk du ñu toog rek croiser les bras di naan ataaya di waxtaan wala di critiquer mais dañuy jëf nit ñi di gis euh, gis nañu lépp kànji baa ngi tuuru ñebe baa ngi mi ngi gën yokk si dëkk bi loolu réalité la boo xam ne mën na nekk la voix. En tout cas, euh, les Sonko, félicitations pour ça. Et Inch'Allah, nous allons ensemble renforcer ces acquis. Bonne, bonne... Euh... niveau des analyses ngeen di wax ay résultats nga teew fii di commencé nuyu suñu gan mun naa ne colonel mi dootul gan fii ci Pastef également ndax jël nañu yéene fas nañu bokk liggéey ensemble étroitement collaboré ci lépp li nga xam ne euh, na nag dina passer la journée avec nous li ma ci jaaxal mooy non euh, non ne vous en faites pas euh, da ngi lay jàllale suñuy remerciement à la coalition donc euh, docteur euh, defe naa bi ñu duggee démb Podor ba léegi euh, wala barki démb Podor ba léegi yaa ngi ñun accompagné ñu di am mbégte bu rëy ñëw fekkee seen inauguration siège suñu siège bi sax laa war a wax damay faral di wax ni Pastef Saint-Louis

ci loo xam ne jotuñu fee campagne ndax ndar biñ fi bu pra daanaka minuit passé na te suñ fi amoon une journée entière dugg gét ndar dugg yeneen quartier yooyu waa ndar eh, cofeel bi ñu am ci ndar eh, te muy naturel kon lu xàttil na lu bëree bëri bëri waaye eh, suñuy waajur bu jigéen sax waa ndar jii la seen cosaan di gii gi donc ñu am fii cër aussi ci wàllu filiation loolu euh, c'est une euh, relation affective bu sore sore sore te saa su su ne dañ koy gis ci suñu duggee ndarit ni ñu ko waa ndar di manifester moo tax euh, damay wax ni léegi damay wax ni yeneen département yi sax boo moytul daan ñu mere ndax ci six mois yi ñëw naa ñaari yoon ndar boobu jamono pratiquement quatre vingt dix neuf pour cent ou quatre vingt dix pour cent des départements du Sénégal teg na ko tànk mais euh, Ndar dafa di aussi une coordination particulière defe naa su ma juumul ça devait ça doit être la première coordination départementale bu ñu implanté ci Pastef loolu dafa am bëri lu muy wone 2014 la ñu créé parti bi lañ ñëw bi implanté ko boobu parti bi nii waaye nag am na ñu fi nekkoon. parmi lesquels euh, me rendent comme hommage particulier votre coordonnateur Petit Gueye euh, euh kenn koo xam ne yéen a ma ko gën a xam mat na njiit ndax oyof na tey na et jox na ñëpp cër defe naa loolu lu gën a yombal seen liggéey seen biir loolu bokk na ci donc lu euh, tey ñu ñëwee fii tombeek lu mel nii mbégte ci ñun ñu ne balaa ñu dem ci tool ya parce que ci tool yi dafa mel ni ndal Euh, def na ci lu ma ne def na ci lu kenn deful mais am na lu bë lu am solo lu ci waa Ndar def ñu noonu nañu ñëw inauguré siège bi euh, di leen féliciter ñëpp ci initiative bi parce que parti politique dafa war a am muy daje yombul nag pour un jeune parti comme le nôtre qui n'a pas beaucoup de moyens suñu doole bariwut euh, conk ñu ci alalu réew mi amuñu ay lobby yu ne suñu gannaaw lépp lu ñu def suñu ñàkk la cotisation yi ak participation yi moo tax luñ ci am rek xeebuñu ko te barkeel na mais parti politique war na am dalwaay boo xam ne wala chaque jour ñu wut benn kër gi di daje di réunion ku bëgg a ñëw te fii xam ni réunion nag ci toll salle bi war na mën a dajale ñëpp ñu waxtaan ñu waxtaan euh, nas li ñuy nas jëm ci application donc ñu leen ci félicité mais di remercier aussi ñi ciy jàpp ñëpp wax na léegi kaaw Moustapha kamara ñu koy nuyu di ko remercier si di ko jox en exemple à tout le monde parce que dañoo talante ci wàllu am-am yàlla ci séddale mooy defe mbiri noonu ñi gën a am ci ñun te gëm cause bi lañuy ñuy ci ñoom mooy lu ñu mën a def rek étant entendu que nag Pastef du parti boo xam ne day ŋàcc nit ba mu ba mu jeex tàkk dañu ne woon su dee mbir mi dañ koo bokk tey Pastef bokk na ci parti yi gën a mag ci Sénégal en terme d'adhésion spontané et désintéressé amul kenn ku ñëw Pastef ci dafa yaakaar ni am na bonbon bu ñu fiy joxe wala bos yu ñuy donc loolu yëpp suñ ko dajaloon tey kenn ku ne seet lu mu mën keroog benn waaye dafa ma ne vous avez pu presque 700000 voix 600 et quelques mille voix imagine ñooñu su doon am nañu yëg-yëg ku nekk ne weer wu ne dinaa joxe 1000 francs c'est 60 millions par mois alors mais jàpp nañ ni ñu yemee ci militants yi kese kese kese. am na nu ñu doon organiser woo te nit ñi def ko mu doon lu sax parce que Sénégal départ yomb na fi euh, nañ fay initiative gis nañ jamono campagne électorale bi nit ñi gënoon nañu farlu tuuti mais bi campagne bi jeexee ñëpp dañoo toogaat di xoole mais suñu organiser woon tuuti rek jàpp naa ni benn parti du ñu ëpp moyen dinañu dajale loo xam ne diggante fii Sénégal ak diaspora bi dinañu dajale loo xam ne dinañu am suñu autonomie di def suñuy activité saa su ne te loolu nag ku mel ni Moustapha Camara daf ciy wone lu bëri ndax lii du guléet defe naa ñëw financé ay formation remise de diplôme lu ne mu ngi koy def di jàppale Pastef saint bi ñu ko ci delloo jukkal di ko jox en exemple à tout le monde également pour euh, ñu xam ni cause moom boo ko gëmee dafa am lu mu lay jaral ñun amul lu ñu téye compte bancaire boo ko demee doo fekk 200000 lu ñu am bu ñu génnee suñuy dépense su kër ak yooyu la ca des dañ koy dugal ci parti bi tournée yi ñuy def nii yëpp ñoo koy financé suñu bopp kenn koo xam ni euh, joxe na ci ay ay donc euh, occasion la woon ma laalaale loolu rek ci campagne yu bokk naa bi que parti bi tam euh, théorie baax na ci wane engagement baax na ci nekk ci réseaux sociaux yi di wax baax na ci critiquer ni foog parti bi di fonctionner parce que c'est démocratique baax na waaye di de temps en temps nga làmb tuuti sa poche boole ci def naa dina gën a avancer lu mbir su loolu weesoo nag euh, di leen féliciter encore une fois ci defoon naa ko bu mu mujjee ñëw ci résultat yi ñu am ci présidentiel bi wax tamit ni PASTEF est une initiative boo xam ne c'est parti de rien mooy spécificité ci champ politique parce que beneen boo jël dafa am fu mu nekkoon màggee fa ba nekk ci pouvoir ak yooyu doog génn samp mais ñun c'est parti de rien et ci diir bu gàtt yàlla may ñun lii mu ñu may du mérite su amee mérite tam peut-être 20 pour cent li ca des nañ ko delloo yàlla parce que on a n'a pas été plus militant que Cheikh Anta Diop wala que Mamadou Dia wala que beaucoup beaucoup d'autres yoo xam ne jaar nañ fi su dee am nañ ci giir bu gàtt loo xam ne ñoom jotuñu ko am seen jamono dañuy dellu sant yàlla waaye initiative bu mel ni Pastef tam li may lancé appel à tous les militants wax naa keroog nee naa leen bu leen détourné wu ci l'objectif loolu Saint-Louis taxul ma wax parce que Saint-Louis gis naa ni benn bloc la bëri na foo xam ne tey Euh, xëccoo yu bëri na pàcc pàcc yu bëri na mais Saint-Louis benn bloc la ngeen di xàccandoo di dóorandoo mais comme dañuy wax ñëpp duñu déggu dañuy yaatal ne bu ñu dara détourné ci objectif bi objectif bi du falu su doon falu kese kese kese mun nañu dugg ci lu bëree bëri bëri pour àgg objectif mais objectif mooy transformer le Sénégal falu benn levier la rek bu ñuy permettre ñu appliquer nos idées pour transformer le Sénégal loolu bu bu ko kenn réeré mbir ba nekk di perdre des ci ay xëccoo xiiroo ŋaayoo ay wax yu amul solo nit nag fu ñu daje euh, nit ñu ko yàlla mooñee fu ñu daje foo jaar euh, xol yi di jóg yenn saay euh, inconscient tant que ñu ngi fixé ci objectif bi dañuy dellu si si l'essence ñuy appeler tout le monde aussi à comprendre démocratie il faut qu'il soit parti du kenn ku nekk ni nga gisee rek noonu la ñu war a defee kenn ku nañ ko jox cëram tamit bu mu mat sëkk euh, parce que léeg-léeg ñun ñii ñëpp dañuy doog a ñëw politique bëri na ci ay xeetu militant parce que yoo xam dañ naan non moi je suis libre kenn yoruma lu ma neex la lu ma xalaat laay wax lu ma neex laay def loolu ak organisation tam kenn ku ne nañ ko jox cëram mais nañu d'accord ne parti dafa am muy doxee mënuñu libéraliser kenn ku ne saa su la neexee lu la neex nga wax soo xëyee naan sa café dugg ci internet bi saaga ku la attaquer colonel, ça c'est pas passé. Il faut tamit que les jeunes moo tax ma ne damay joxe Saint yëpp mosuñu cee mën wala ñu ko ci te yéen a ngi def liggéey bu extraordinaire yooxuwu leen fenn bu may mujjee nag mooy parti la boo xam ne mi ngi évoluer vite am na fu ñu jógee am na du chemin qui am na fu ñu bëgg a jëm mais yeggaguñu day day yàqu moo tax le message que je mooy bëgg a daal dem mooy soyez très ouvert très ouvert politique ay addition la arrivé dans le parti au même moment ñi fi nekkoon 2014 doon jeex fii peut ñaar leen doon wala ñett kenn ku ne boo ñëwee te di nga lu àndaale noonu nag lay continuer di continuer nañu am couverture di accueillir nit ñi di leen mettre à l'aise di parce que même yi ñëpp ñu am comme adversaire tey ñu nekk en face de ñu am na seen biir ñoo xam ne c'est des de qualité ñooñu mun nañu dem ba ne man ndekete li ma doon def Pastef la nekk nekkul foofu soyons ouverts tant du nit koo xam ne jàpp nañu kii mënuñoo ànd ak moom parce que bokkuñu valeur te ñoo ñooñu mu nekk xam la ci Sénégal ku fi def xam nañ ko mais su weesoo loolu nañu am ouverture di accueillir les gens di leen mettre à l'aise di wax nit ñi ni ñëpp ñëpp xaj nañ ci parti bi ñii ñëw tamit nañu ñëw avec humilité bu ñu ñëw jàpp ni dañuy ñëw raser li fi nekkoon yëpp et cetera ñaari sentiment yi dañ ko war a dàq maa fi nekkoon démb barki dem donc maa war a boofu lépp du esprit passif man mii je le président du parti

dellu si di leen félicité bu baax di leen wax ni euh, militant de la Saint-Louis une collaboration qui nous donne entière satisfaction sa la ñuy duggee xol bu set